julli daal di sëlmal dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne ci la jàpp koor gi 5 juróomi waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom-ñaar bu dee waxtu dog yi heures 30 maanaam juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee fanweeri simili ñu ngi leen di jox dig ba suba incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wal madadi